waaw meurtre euh, ci niñ ko mën a définir mooy koo xam ne si da nga rey nit nga fekk nit nga rey ko am na ci loo xam ne sii sax mën nañ ko wax euh, assassinat bu fekkee da nga préparé wu bi nga koy rey def ay manœuvre pour mën ko rey prépare ko daal pour rey ko boobu assassinat lañ koy tudd mais meurtre mooy koo xam ne sii dafa jékki-jékki rey nit. moo ci laajee dinaa ci sawar a wax parce que bi mujjee am nii. kaa boobu ki ñu rey ki ki sës si man rek la ñoo bokk benn dëkk ñu ñoo ko yóbbu ba Morolan robi ko fa di Ibrahima Samb kaa bi nekk li ko li li mën a tax mu deñ man damay interpeller waa droit de l'homme nañu bàyyi topp seen intérêt di wax li nga xamante ne ñoom intéressé wu leen. nit ñi ci boppam ñoo amatul xolu muñ quoi nit ñi ñoo amatul xolu muñ parce que su fekkente ni da nga xat xol luñ la def rek da ngay gaaw a réyagir et mooy waral loolu voilà parce que tamit nit ki boo taxawee moom wax bu na coow naree am kenn war na mun dem bàyyi morom bi quoi. affaire ray bi moom na naqaru naa ko trop quoi waaw sama mbokku chauffeur yi nag waaw lu ma leen ñaanal yàlla rek na leen fi yàlla bàyyi quoi mais ay rey nit moom waaw li may ñaan yàlla état bi na si jóg quoi waaw ñu amul liggéey rek ay rey. ah loolu comme comme li ma wax léegi rek jikko yu yàqu yi moom ci la nit ñi amatuñu benn repère. xanaa ñu delluwaat. yàkkaliwaat diine ji rek yàkkaliwaat adduna bi ndax ñu ba xool ba xam nan la ñu mën a def ba réew mi sansé ndax rey moom xam nga maanaam li ko indi moom ah xëy na am na lu ñu bëgg. man li ma xalaat mooy Sénégal léegi de nos léegi meurtre yi bëri na trop te lu waaye wax lu nekk ñu ne dafa dof xel bee neexul wala li ñu trouver ay excuses yoo xam excuses yi banaan waaye war nañu yaraat nag sunu bopp bu baax ndax bu njëkkan da nga daan toog doomi jàmbur romb la def lu warut nga jàpp ca wala nga wax ci léegi doomi jàmbur bu la rombee di def lu warut ñi woo ko xam nga loolu moo indi lii di nga gis nit romb ko léegi ci mbedd mi muy def loo xam ne xam nga lii jëmut ëllëg waaye doo ci mën a wax dara. arme c'est légal légitime défense lañ ci wax mais pas ngay tiim nit di ko rey noonu. voilà loolu la daal nit ñi war nañ xoolaat seen bopp xool seen comportement ba pare da ngay gis ku nit ñu tëj ko même pas ay deux ans ay mbokkam lijjanti ko kayitu dof mu génn ñu ne dafa dof. xam nga Sénégal même depuis ñu créé ko depuis ñu am suñu indépendance c'est un pays laïque te avant il la peine de mort donc c'est pas une question de pays laïque wala pays islamique moo tax ñu appliqué wuñ ko dañu demoon ci eh, xam nga droit pénal day évoluer. dañu demoon di dem di dem di dem ba mu yàgg ñu gis ne peut-être war nañ fi jëlee peine de et cetera parce que da cee amoon xëy na peut-être nit ñi gis ni dañ ci dafa am ñoo xam ne sii dañ ci dañ ci use dañ ciy abusé peut ñu ni léegi nañ dem ci beneen version bañ a indi peine di tëj tëj yu yàgg wala perpétuité. man li ma xalaat mooy Sénégal. ku rey nit ñu rey la comme li ñuy wax affaire ko ku la ku dag ku sàcc ñu dagg sa loxo boobaa loolu bés bu amee à fois nit doo dégg meurtre yu bëri yi si mbedd bi. loi bi ñu dindi woon ñu delloo si ko comme ni ko maître El Hadji Diouf waxee à l' assemblée nationale man daal yaakaar naa ne bés buñ ko defee ku rey la yaakaar naa ne rey bi dina wàññeeku. loi bi nga xam ne dañoo àtt ku rey nit ñu rey la dañ ko fi war a indi parce rey bi dafa metti nit ki day génn si këram dem liggéey. ñu nga xëy ñu tàggee la sa ginnaaw ñu la sa doom dee na si maali foro loolu rek mën na indaat sa beneen catastrophe. rey nit tey ko dañ ko war a teg rey ko ci télé bi ñëpp gis ko bu dañ ko yóbbu stade sax yóbbu stade ñu rey ko xoolal mbooloo mi gis ko Sénégalais de dee la ragal. dañuy rey suñuy doomu banlieue si zéro petit à petit nga géej stade nit ki mu génn di doxi ay soxlaam. waajur ki mu rey doomam nekk fi di métti lu et tout yooyu tamit war nañ ko xool parce ku rey nii dañ si war a jël ay mesures yu ferme peine de a amaat ku rey tey ko dañ ko war a rey mu jeex tàkk